ñaareelu pàcc ubbite école 2023 2024 dinañ ko amal alxamis juróomi fana ci weeru octobre gannaaw corps enseignant bi ndongo yi dinañ dellu ci classe yi ay écoles yu bëri nag yu nekk ci biir capitale yi noppi nañ ngir dalal ndongo yi loolee la ñu nemmeeku ca lycée Blaise Diagne. Euh, ñu yaakaar ne Blaise Diagne xëy na bokkul ci lycée yi nga xam ne euh, du ñu mën a ubbi tey jàng tey parce que locaux yaa ngi fi euh, amuñu inondation ñu ngi ciy ñu ngi sant yàlla jàngalekat yaa ngi fi. am na ñu jël retraite am na ñu ñu affecté mais am na euh, ñu ñu ci remplacé même bu fekkee remplacé wu ñëpp. ci yeneen école nag jamono ji ñu ngi amal ay réglages yu mujj ngir mën a dalal ndongo yi école Mamour Diakhaté ba nekk ca Médina ay volontaire ñoo jóg di bay ñax ba nekk ci école ba directeur bi mu ngi am yaakaar ne ubbite bi dinañ ko amal ci jàmm. ñëpp ñëw nañ te ku nekk jox nañ la li nga xamante ni loolu nga war a liggéey. am na ay agents yu nekk fii di nettoyer. waaw depuis démb lañ ko commencé mais peut-être am nañu yaakaar ne xëy na fekk suba dinañu am espace boo xamante ni dinañu permettre ñu dugg ci salle de classe yi parce que salle de classe yëpp moom set na. loolee itam lañu ñu nemmeeku ci sem El Hadj Mansour Sy fii nag liggéeykatu UCG yi ñooy amal set setal ci biir école bi principal bi di ñu xamal ne lépp dina yemb fii ak ñuy amal ubbite bi. Euh, personnel bi maanaam mooy jàngalekat yi ak surveillant yi am na si ñoo xam ne heure du ñu ubbi ñëw nañu présenté nañu UCG. at bu nekk dañuy ñëw fii vraiment jàppale nu ñu si donc nettoyage bu école bi désherbage bi ah, am naa yaakaar ba la fii ak peut-être treize wala quatorze heures ñoom ñu pare liggéey. ci lu soxal inscription yi nag nit ñi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk. waaw école bi fu mu nekk nii macha allah euh, suba xam naa ni daal euh, ñun moom nu sommes prêts nous sommes prêts on est là fiche inscription yaa ngi nii parents yi ñuy commencé di ñuy tuuti tuuti mais yaakaar naa ni suba daal day ñëw dëgg dëgg ndax suba mooy rentrée élèves yi. waaw loolu daal moo fi am xalaat waaw jërëjëf ok merci Abdoulaye Diagne dafa ñëwoon ngir inscrire doomam moom nag mu ngi ñaawlu chéra yu inscription yi public euh, temps yee passé ñu defoon ay annonce ne comme quoi que wàññi nañu kii yi mais man je trouve que mooy loolu daal parce que là ils m'ont parlé de yokk nañu xaw ma tenue yi ay jaquette je sais pas bon li ma waa ji expliqué nee na bii pas parents d'élèves yi ñoo décidé pour en cas bu seddee dañuy am tennis sport police jacket donc voilà ils ont augmenté. gannaaw ñetti weeru vacance jàngalekat yi ak ndongo yi dinañu wat alxamis ci côté bu nekk nag ñu ngi ñaan année scolaire bi ñu amal ko ci jàmm.